de guerre que trente cinq la de guerre euh, Eumeu man man kooku man vraiment sama xel nanguwul loolu loolu du prix normal loolu du prix normal d'accord ma ci la loolu mu laaj baax na loolu mu laaj noonu baax na waaw te su ma doon moom sax su ma doon moom sax la dëgër man ñun géejawaay gépp suñu géejawaay la géejawaay gépp estafu Lac de mooy estafu guy gi estafu guy gi mooy estafu Lac de kon su ma gisee ci moom lu ma war a wax dama koy wax tey jii su ma doon moom sax duma dem di jël ay Eumeu Sène damay dem jëli Gris Bordeaux loolu mooy làmbam na ko def waaw non bëree gisu gëri gër bëri wër na la dëgër dafa neex loolu làmb dàq ko ban moo dàq boobu làmb ah, ah, ah, lañ sonn waaw rasu mais rasu ci bëre la bokk mbër mu la dàq rasu moo la dàq bëre. boo jekk jekkul nga nga jekkul ñu egg la foo nga xamante ni jekkoo nga rasu ah? mbër mu la ko dàq moo la dàq man de su ma sañoon am mbër mu la mel ni la degeer di daan rek te kenn du la daan ma sañoon am ko de. non. waaw mais kooku loolu loolu loolu mu foram la loolu fooram la loolu lay bëree te saa yoo defee erreur mu exploité la. loolu kay moom baax na man loolu man léegi wala ma su ma sañoon am mbër mu mat mel ni Lac de Guiers di daan te kenn du la daan waaw. ok. xam nga tey jii euh, Ama Baldé combat bi mu jël nii. mooy combat ba nga xamante ni tey dama leen ni mel naa la ni baccalauréat lay passé tey ji su daanee Modou Lo bu daanee Modou moom fi mu bëggoon egg ci làmb egg na fa waaw mais nag mi ngi bëreeg ndaanaan ku naqaree bëreel lay instant bi nii ku naqaree bëreel lay bëreel waaw muy Modou technicien la day entraîné mën naa bëre fii ba suba du sonn Modou Lo est-ce mos nga koo gis ci làmb mu sonn ah mos naa am jeex na jàmbaar la du bàyyi bañkat la kon looloo tax mën la bëreeg moom yombul te day pare tout le tout le da koy pare amul lu muy bàyyi. doole est-ce waaw ci côté boobu yow yow da nga yaakaar da nga ci yaakaar doole. waaw parce que gars yi ñu amaale doole loolu loolu partage nga avis boobu. d'accord merci. d' accord ma ne amaa ko ëpp doole mu loolu mën nga ko ëpp yaram mais doo mënoo ko ëpp mën nga ko ëpp yaram mais mën nga koo bañ ëpp doole waaw. waaw mënoo mën nga ko ëpp yaram mais mën nga koo bañ ëpp doole mais li ma la wax daal mooy amaa moom combat bii nii mooy baccalauréat am su ko réussiree jeex na te lu mu ci mën a def pour réussir ko na ko def. Hmm? ah il faut mu réussir ko su ko réussir rek foofu la foofu la làmbam nekk mais su ko réussiru rek day dem ah, day commencé waat am benn benn benn recul boo xamante ni day commencé waat pour commencé waat pour mën a demaat waaw. non xam nga xeex bi moom xeex moom wut buntu la rek soo amee buntu rek da ngay dem parce que boo gisee boo gisee làmp yi nga fi gis yëpp xeex yi nga fi gis yëpp amul solo si bariwul gars yi bu ñu defee une deux trois jaxasoo nañu waaw mais daal man li ma li ma li gën a li ma ci gën a intéressé ci combat boobu ci ñoom ñaar laa koy boole question bi. ñoom ñaar laa koy boole conseil bi kon ñoom ñaar laa koy boole ku ci mën a wuti doole ju wóor wuti condition bu wóor dem ñaan lu ji comme làmp ak ñaan ñoo ànd bañ a bàyyi dara waaw waaw loolu laa leen di conseiller ñoom ñaar laa ko boole waaw xam nga xam nga xam nga problème bi mooy problème bi mooy Modou Lo moom arbitre musu soufflé rek même bu dee ñàkk arbitre musu soufflé mu daanu arbitre soufflé rek mu daanu Modou Lo combat mi ngay def gis yëpp combat mi ngay gis yëpp. lu mu metti metti dina jël benn temps temps boobu nag boo liggéeyul lu boo euh, lu ko mën a tenir ah ci foofu lay jaar moom indi exploité la parce que moom du sonn mu loo mu xam mosoo gis mu sonn ci làmb waaw. mu loo sonn na instant bi ñu toll nii sonn na lâché na mosuma ko gis. ñoom ñëpp. doole condition dem ñaan ji ñoom ñaar laa ko boole question boobu. mën na jël temps de combat boobu mën na jël temps leer laa la wax hmm. waaw mën na jël temps. no non kaaw moom yaakaaruma ko si yaakaar naa ci bëre lay jeex loolu loolu laa gis.

à chaque fois saa yu saa saa saa yu dox ci kawam moom mi ngi lay gis mu ngi lay xool loo def xam na ko waaw kon boo koy forcer aussi di ko attaquer na nga xool li ngay def waaw parce que Eumeu Sène def na erreur boobu ci moom bi muy jël kawoo bi def na erreur boobu ci moom loolu tax man na saa yu koy attaquer saa yu dox ci kawam. na nga xool na nga xam ni ngay doxee ci ko parce que chaque fois mi ngi lay gis hmm? waaw. la ak leneen ak leneen waaw. non amaa moom tam wax dëgg yàlla macha allah xale la boo xamante ni nii fi mu ñëw nii da koo ñafe ba agsi fi kon. lu mu mënul am ci làmb amul mais xale la bu mu yàkkamti dara na xool li muy def rek xool fan xam fan lay teg tànkam parce que aussi nag ndaanaan lay bëreel waaw ndaanaan la mais ndaanaan lay bëreel waaw ah bu rëy waaw combat bu bari coow tey jii euh, feebar bi moo fi dox rek ak ci nii rek mais sinon combat boobu mooy combat bi nga xamante ni moom la nit ñi di commentaire waaw. non mooy coow li ci dëkk bi boobu mooy coow li ci dëkk bi combat mooy coow li ci dëkk ak combat rëg-rëg ak guy gi ah. ah. ah. waaw. sant waaw non sant yàlla rek. di ñaan yàlla jële fi fii fi nga xamante ni moom mooy feebar bi parce que aussi nag li mu li mu li mu handicapé bari na trop li mu handicapé bari na kenn xamul ban gémmiñ moo am barke na ñëpp ñaan yàlla jële ko fi pour doomu aadama yi mën a dellu seeni activité di sant ñëpp di sant waa axlu làmb di sant àdduna bi di sant waa géejawaay yëpp ci kaw ba ci suuf di ñaanal ñëpp jàmm ñaanal champion yi nga xamante ni ñu ngi biir géejawaay di leen ñaanal ñoom ñépp ku ci nekk la nga nekk nga am ci réussite man maa ngi leen koy ñaanal loolu laa leen di ñaanal ñoom ñëpp waaw di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal sama njaboot waaw di ñaanal Mor Fadam fu mu tëdd gënal ko fi mu jóge waaw sant yàlla